muy mel ne ni ñu leen ko waxee woon ba léegi ñoo ngi ci liggéeyu toolu Xelcom bi ba fi mu ni liggéey bi mat na ñoo ngi toll ci war a dajale dugub ji war koo rafetal ba jekk-jekkalaat ko ñoo ngi taxaw nag kenn ci ñi nga xam ne nii ay ay mën nañ leen woolee ay njiit lañ ci li nga xam ne mooy liggéeyu Xelcom bi muy sëñ Babacar bëgg bëgg saaliw mi nga xam ne nii ñu baree baree bari xam nañ ko ci li nga xam ne moom mooy wàllum internet ci réew wàllum réseaux sociaux yi ci nga xam ne nii wax dëgg mu ciy bay waaram bu baax a baax ku ko xam-xam ne bëgg saaliw moom loo ko loo ko ñàkk-ñàkk xam maam boo nekkee ci Facebook moom da nga xam ne moom moom bëgg gi mu bëgg Serigne Saliou moom lu wér la te mi ngi taxaw ak ñun fii ñu bëgg koo laaj ay euh, yenn kàddu rek ngir li nga xam moom moo yëgeeku xel gam nga xam ne démb loon ko wootee tey ba nu xëyee kenn amul liggéey ba nga tàbbisee ci digg kon sëñ Bakar ginnaaw bañ la nuyoo te siyaare la xam naa kàddu yu njëkk yi rek muy mel ne nga xam ne nii mu mel nga xam ne moom moo yëngal àdduna moom mooy naqari xolu nit ñi ngir loo xam ne da ngaa sëriñ bi da koo woote yow yaay paas yow yaay ñëw yow yaay ñëw sax boo fekkul liggéey dangay ngay jooy loolu xel mënu ko woon nangu lu am la loo xam ne ni maanaam kenn mënu ko expliquer waaye nag yenn kàddu yoo xam ne day ñëw jóge sëñ Saliou ñëw ci nga xam ne ñooy topp Mawahibou TV. waaw waaw jërëjëf euh, ñoo ngi nuyoo bu baax tey siyaare di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di ciy teg sunu jëwriñ ju baax ji muy sëriñ Cheikh mu Serigne Saliou Mbacke mi nga xamante ne. moo jiite liggéey bii ah, boobu ba léegi ah, di siyaare mboolem ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy seetaan ci Mouhaïbou TV muy chaîne boo xamante ne ah, ñëpp ñu koy bàyyi xel seen lépp it seen yëngu ak seen dal di sëriñ bi kon lii nii daanaka firndeel la ci ngir tontu ci lii nga ma wax damay wax ne que yàlla la eh, sunu borom moo fayee sëriñ Touba xolu jaam yi sëriñ Saliou di sëriñ Touba bokkoon ci ñi nga xamante ne rek. liggéeyaakoonu Serigne Touba lañu kon ñii ay murit lañu bëgg gi nu bëgg Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké moom moo leen indi fii ci xel Xelkom Xelkom it di tawféex goo xamante ne Serigne Saliou Mbacké jàpp naa ne waxoon na waxoon lan na ko boppam ndaxte 91 bi nga xamante ne jébbal nañ ko kayitu xel koom bokkoon na ci li mu defoon mooy tafoon ko ci dënnam wax ne sant na yàlla bi mu ko donn la suuf si di Xelkom ndax dina ko ci mën a liggéeyal ànd koog mbokki jullit yëpp boobee loolee la waxoon mooy bi ko biñ ko ko jébbalee kayit yi kon loolee tey fii pàkkub pàkkub sunu borom la am na ci it yeneen wax yoo xam ne xëy na du waxi mbooloo ak waxi pénc waaye ku ne xam ne ne lii du ay tooli kese waaye bërëbu yàlla la yaakaar naa ne ku ñu wax sëñ dara Dramé nettali woon na ne sëriñ Saliou Mbacke moo ko wax xel koom bërëbub leer la leer yi fay wàcc bëri waaye ndab yi leen di taataane néew lii moo waral may woote kon tey képp ku fi ñëw nanga xam ne da ñëw ñëw ngir taataan ci leer yi nga xamante ne mooy wàcc fii ci xel xelkoom am na borom baax sax bu koy dàqantalee di naan xel xelkoom mu xaddas mel na ne kon loolu ba tey ay mbir la kon li ngeen di gis nii moom yàlla moo ko tawféexlee sëriñ tubaa ak muritu sëñ Touba yi ndax lii nii démb sëriñ aboo Kebe mu soxna waalo mu sëriñ Saliou Mbacke wax na lu lu mat a bàyyi xel. nee li tubab di wax normal li dafa lu normal waye normalul ndax ño xamanteni ni tay fi ni amul péex tangor la tumuranke mo fi ne waye ñi nga gis tay. teug mi ngay dégg ci gannaaw kanam yu leer yi ngay gis te ñukay def ak mbégte loolu wané na né li mbiru yalla la du lu xel mëna nangu wax dëgg yalla fi amul climatiseur amul ndox mu sedd amul ay bernde ku fi ñëwé dia fi ñëwul sa moyen kisering ngir so ciofel ci Serigne salihou Mbacké Serigne bi wax naa ne li Cheikh Sidi Moukhtar waxoon bu muy doog a woote ci euh, atam yu njëkk ya waxoon na ne ni doomi Serigne Touba yëpp amee bës muy màggal bésu fàttaliku noonee la ko Serigne Saliou Mbacke waroon amee waaye koom bii mooy bësam loolu it moo mat a bàyyi xel moom it ni mu dundee woon rek la ko yàlla fayee mooy xidma jël léppam jox ko Serigne Touba moo tax tey lii amul fenn ci àdduna mosoo ñu koo gis ñoo xamante ne du ñuy dajaloo di ñàq di tumuraanke ngir sen tiofel bu ñu amoon ci Serigne Saliou mbake lolou lu reey la ndawut kon ñoo ngi bu baax baax tay ñaan ñu yag ko tewé yag ko def ci barkeb Serigne bi te mourid yep yok waye dal nañu xamne fi fii pajuk aajo la lu fi way indi nako ci fas lu lu yitte bi reey reey reey rëy na ci fas ndaxte ñuy nangola kon jërë ngeen jëf ñoo ngi siyaar bu baax